Charity must feed wolof rek ngeen baal ñu man maa ngi tudd Doudou Diop man maa secrétaire général fédération agropasteur bu Diender nekk président FENAP nekk naa aussi membre du CNCR euh, léegi daje bi tey illa bi mooy dañuy bëgg a wut benn mandarga boo xamante ni Sénégal gépp dañu ci déggoo. ci ni lii ku ko gis di nga ni bio la boo xamante ni Sénégal gépp la ëmb euh, loolu nag xëy na jàpp nañu yombul waaye ak àndandoo bi ñu ànd ak benn partenaire suisse bi ñu wax ex te Amadou Gueye fii Sénégal diriger euh, direction boobu vraiment ñu ngi am yaakaar bu yaatu ci ni euh, gëm-gëm bi béykat yi gëm ni bio Sénégal mën naa am consommateur aussi gëm-gëm bi ñu gëm ni lekk lu sell nekk na seen priorité actuellement moo tax ñu am yaakaar ci ne loolu lu muy jafe-jafe am nañu yaakaar ne dina jëm kanam loolu aussi xëy na dañ ci gën a ñaax li nga xam mooy press bi parce que presse bi nekk na aussi jumtukaay boo xam ne dafa am solo pour que lay bi ñuy lay ñu di ko wax plaidoyer bu ci jàppalee FENAP jàppalee woy jàppale yi am nañu yaakaar ni Sénégal yëpp daañu dellusiwaat ci gëm label boobu ñu bëgg a wax bio Sénégal pour que consommateur yëpp lekk mbay mu sell te mucc ayib jërëjëf. waaw produire lu doy produire lu doy dafa yombul ndax fi ne ñu def conventionnel sax mu ñoo doyal Sénégal mais ñun am nañu yaakaar ci gëm-gëm bi béykat yi gëm ni mën nañoo bay ceeb ci mbay mu sell loolu moo nu jox yaakaar ci ni en tout cas bu ñu jëmee ay at ci kanam mbéy mu sell mu jëm ci wàllu ceeb dana yaatu ci réew mi. système participatif de garantie maanaam muy système ba nga xam ne day day permettre baykat yi ñu ñu ràññee la nga xam ni moom la ñuy def. ñu ràññee seen produit yi ñu am ña nga xam ne ñooy saytu seen liggéey te tamit ñu am produit ba nga xam ni dafay am ràññeeku a xàmmeeku ak xàmmeekukaay ci marché bi loolu projet boobu moom la ex di jàppale loolu moo ñu fi indi tey te loolu lu tax ex bëgg koo jàppale parce que lu ñuy jëfandikoo tooke ci mbayum dër bi fii ci zone des dafa bari te tooke bi dina law ba dem ci légumes yi ñuy fe fekk ci marché bi dina law ba dem ci ndox mu nekk ci suuf dina law ba dem ci gàncax gi dina law bay lor sax jur gi te loolu pour xeex ko moo tax ex di ONG Suisse nga xam ni taxaw na pour fas ne jàppale FENAP si ñetti at yi ñu dëgmal ci zone des Niayes ak ci juróom-ñeenti at yuy ñëw parce que ci Sénégal yëpp nga xam ni FENAP mi ngi fay yëngu te loolu ngir ñu am système ba nga xam ne daañu ko taxawal pour ñu saytu la nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy bay la nga xam ne ñoo ngi koy def ci marché yi mu am xàmmeekukaay te buñ ko xàmmeekoo ka nga xam ni mi ngi dem ci marché mun na ràññee ah, la nga xam ni moom moom moo jógee ci mbay mu sell ak la nga xam ni jógeewul ci mbay mu sell tamit dina jàppale tamit baykat bi ba buy jaay muy jaay ak njëg gu baax te loolu dina encourager baykat bi ba mu gën a sax ci liggéey ba nga xam ni moom lay liggéey. Mhm. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ibrahima Seck nekk ki nga xamante ne mooy lëkkale euh, kuréel gi nga xamante ne moo tudd FENAB FENAB ñi ci nekk di yëngu mooy baykat yi sàmmkat yi nappkat yoo xamante ne ñoom dañuy def. mbay mu sell te mucc ayib waaye mbay mu sell te mucc ayib boo ko déggee tam mooy sàmm gu sell te mucc ayib mooy napp gu sell te mucc ayib mooy ne li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo lépp duñ ci dugal tooke danañ ci def loo xamante ne ñu ngi koy sukkandikoo ca suñ maam yi li nga xam ne moom lañ amoon lu gën nga xamante ne maam yi nañ daan bayee mooy lañ laloon mooy jikko yi ngor jom jomb nangoo liggéey li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom waaye itam nga am yërmande yërmande ci doomu aadama waaye yërmande ci mala yi yërmande ci jur gi ba doo jël tooke guy lore di ko def loola nag muñ ko jëlee dolli ci xam-xam yu bees yi nga xamante ne moo génn nga xamante ne danañ am mbay moo xamante ne moo sell te mu ci ayib la nga xamante ne moo ciy tukkee ku ko jëriñoo dafay nekk loo xam ne dafa baax ci wér-gi-yaram wér-gu-yaramu doomu aadama yi wér-gu-yaramu jur gi waaye itam fexe ba nga xam ne gànjar gi ñu yàlla may mooy suuf si mooy ndox mi mooy ñanaaw yi mooy léegi euh, euh, euh, lépp loo xamante ne moom suñ borom teg na ko suñu loxo ñu saytu ko saytu boo xamante ne danañ ko jëriñoo jëlam bu sell boo xamante ne ñun danañ ci jëriñu waaye suñu ñëw ñay ñëw ëllëg man cee jëriñu lii nag tey nga xamante ne moom la ñu dëgmal nga xam ne dañoo bëgg ba mbay mu sell te mucc ayib mën a jar bu baax nga xamante dafa am koo xamante ne ah kuréel boo xamante ne ñoom ñu nga dëkk ba réewu Suisse ONG la koo mi tudd ex EPR ex EPR boobu moom moo nangu ne man de yéen seen gis-gis ak sama gis-gis dafa ànd yéen nag dinaa fexe gunge leen juróom-ñeenti at waaye dañ koy séddale ci ñetti at ñetti at yu njëkk yi nañu tàmbalee suñ gox yi jege ñu nga xam ne fa la ñuy bayee dër wàllu dër bi te kenn ku nekk ñu koy tuddee ñaay waaye itam nañu fexe ba. yemale ko ndax lii ñuy def mu mën a yemb nga xamante ne ñun danañ ci am ndam nga xam ne dañ koy def léegi meññat yi ak léegi mooy euh, euh, lujum yi ñu tàmbalee foofu waaye ñetti at yooyu bu fekkee ne weesu na ñu laal réew mi yépp ci juróom-benn at yi nga xam ne mooy des juróom at yi nga xamante ne tey ku bayati mbay mu sell te mu ci ayib dana am màndarga boo xamante ne moo koy wane ku ñëw gisati. dana mën a xàmmee li nga xam ne mooy mbay mu set sell te mucc ayib ak mbay mi nga xam ne mooy lor doomu aadama mooy lor njanaaw moo mbay mbay nga xamante ne moom la ñu xam te mbay moom tey jii moom moo tax ba suñ suuf si ràpp na suuf si gàpparleku na moo tax ba nga xamante ne njanaaw yi dem nañ moo xam ne mbott yi amoon nga xamante ne gisatuñ leen moo tax ba jëmb yi nga xamante ne ñoom ñoo leen jox lem tey lëmb yooyu de néew na ñu gis leen rabu àll yi ñu ngi wàññeeku. mooy nga xamante ne ndox mi ñuy naan sax dem na ba nga xam ne di ci def ay tooke mooy mbay moo xamante ne tey jii dañ koo war a ba mbay moo xamante ne day dafa dellu gannaaw mbay la moo xamante ne baaxul tey baaxul ëllëg waaye mbay moom moo taxit léegi feebar yu bëri di dem jàngoro yu bëri di ñëw ci ñun yoo xamante ne ndax ci xeet yi nga xamante ne tooke yi ñuy indi daf ci am yoo xamante ne nit ki mën na koo nokki mën naa laal yaramam mu dugg ci yaramu wala mu naan ko loola lu tuuti tuuti du jeex sa yaram dana dem fa am graisse ca sa yaram mu toog fa di toog bés boo xamante ne bu matee la nga xamante ne war naa lor doomu aadama nga gis doomu aadama génn àddina kon ñi ngi dund ak ñoom waaye loolu nañ xam ne ñun li ñuy def dafa nekk loo xam ne dafa jublu ci wér-gi-yaramu doomu aadama wér-gi-yaramu jur gi ak wér-gi-yaram nga xamante ne àll bii nga xamante ne moom la ñu yàlla may dafa mel ni rek mbayum suñ borom la ñuy def ne suñ borom mooy baykat bi gën a mag waaye fu loxo doomu aadama demul da gis garab gu njool garab gu diggu doomu si ngajji yàlla day warale wir goy mbay yi loolu mooy tubaab moom lay wax diversité mooy ne lenn lu ne dafa am njëriñ nit ki am na njëriñ waaye suuf am na njëriñ njanaaw am na njëriñ kenn ku ne dañoo war a am ñu déggoo am ñu tëddee kenn ku ne jox yërmaane sa morom loolu mooy tax nag mbay mu sell te mu caay looloo tey moom lañ bëgg a taxawal moom lañ def fii nga xamante ne dana am li nga xam ne bu ñu ko defee nag. li may jeexalee mooy dana am ñetti nit ñoo xam ne dañ leen jël di leen jox la nga xamante mooy seen àq ndàmpaay yoo xamante ne weeru wu jot ñu ñu fay leen ci ñaareel ba ca biir nga xamante ne moom lañ koy def àll bi dana am téeméeri ndaw yu jigéen ak góor yoo xamante ne ñoom danañ bokk ci biir ñoom it di am luñ leen di mosal muy dolleeku ca xamal seen koom-koom waaye nag dana am juróomi téeméeri baykat yoo xam ne dañoo nekk ci ay bëri bay kër baykat te këru baykat gu ne macha allah da nga fa gis fukki nit boo ko seetee dafay mel ni léegi juróom fukki junney nit dana bokk ci lii nii ci wàllu ñetti at yi waaye bu ñu demee nag ba ci juróom-ñeenti at yi danay fekk danay nekk ñaar fukki junney baykat bu fekkee kenn ku ne am nga fukki nit sa kër dafa mel ni ñaar téeméeri junney doom aadama ñooy liggéey ci biir nga xamante ne danañ ci am koom-koom waaye danañ ci am loo xamante ne moom la ñu suturloo lii mooy mébét bi di ñaan yàlla nii nga xam ne moom lañ ko tàmbali yéene ko yàlla na ko yàlla yeggaleeg jàmm wasalaam jërë ngeen jëf